kawo dafa kawo man tey ji sa sa woo dafa kawo man tey ji sa sa woo dafa kawo may lay fay a bi. maa yaa ngi ci jàmm maa ngi jàmm a baax. namm nañ sa takkusaan doo wax wuñ la benn combat. waaw gars yi namm nañ ma may sama yaram mi ngi laaj mais boobu ba ma adversaire ndax gars yi mooy loolu dañu xool nooy. gars yi dañuy dañuy xool ne wala dañuy daw. waaw dañuy daw quoi mais persil bi doon na ma proposé combat Dakar mais dañoo xaw a déggoo staff bi moo tax. ñu gis ni tey sa rakk sa xarit muy Ngouda woote open press bu mag bii ñu gis sa taxawaay sa diggante Ngouda xam nga ñu seeki jàmm di waxtaan lu bëree bëri ki mi bëreel nii di buuru àndala maa moom suñu combat dox nañ ko ba tàyyi mu yàqoo si côté am kon bu ko nguur a jëlee tey yoon na mu ñëw jàpp si doolee ko mu daan ko bu ko defee ma xool leneen mais yàlla baax na yàlla ko yàlla may ndam Seydou Gueye. dimanche soreetu. waaw est-ce que Ngouda na. Ngouda pare na bu yàgg écurie ambulance mbër du fa génnee am na laaj gay ne am na cere jaax aari ja ñoom ñëpp a nga fa ñun ñaan leen lay ñaan yàlla musal si cat ak laa mañ ba jour bañ jàpp ko daango incha allah. ñu ngi lay jaajëfal. merci waay. Boy Boy Diakhar da ngaa jógee gën a nekk ci forme. waaw mais tey ba jógee combat ba léegi noppaleku ñu ñoo nekk sax suñu entraînement parce que dañoo am suñu éléments nga xam ne dañoo war a bëre dimanche incha allah. mi rek bi nga jógee sa combat léegi benn a mun laa gis. Boy Jaxaaw ci lan la nekkoon après combat. waaw après combat bi xam nga rek dañoo wër si ñu doon ñaanal ñu jàpp si combat yi parce que foog nga bëree ba pare dem seeti leen loolu moo tax ñu xawoon làqatu tuuti mais instant yi libre nañu quoi. Boy Jaxaaw fa la teg bëtam fi mu toll nii. sama bët moom maa nga teg si tonnerre quoi tonnerre. ñu dox combat bi. waaw ñu ngi si combat bi. sori na waaw daal ñoo ngi si daal mais nañ ñaan yàlla mu sotti rek. tey ñu gis nga ñëw ci open press mu mel ni 100 pour cent Thiès moo la andi wala sa diggante Ngouda moo la andi. waaw mais xam nga Thiès moom lépp benn la quoi ñëpp Thiès lañ dëkk kon donc dañuy gën a firndeel la yi rek ndaw la muy bëre nga xam ne dëkkul Thiès kon donc moom la ñuy àndal moo tax tey ñu ñëw soutenir ko pour di ko ñaanal suñu borom may ko ndam ak doomu Thiès yi nga xam ne war nañoo bëre si bis su mel ni Thiatou Boy Diakhaw ak xale bu gaaw waaw. kon kon fi mu toll nii Dembe mën nañ ñëwaat sa kër ñu waxtaanee waat après làmb ndax li li li téléspectateur di xaar ci Boy Jaxaaw gisaguñ ko ndax après combat ba tey gisaguñ ko waaye dinañ fa ñëw ñu waxtaanee yoonu làmb làmb fi mu toll ëllëgu Boy Jaxaaw Boy Jaxaaw looy tàggatoo. waaw di sant yëpp di sant Thiès bi yëpp di jox gars yi rendez-vous dimanche rek ñu waajal ñëw terrain Wally daan feesal ko ànd ak suñuy doom suñu borom suturaal leen may Thank you. ಹೋಗೇ Yeah. kuy waay yar bu nekk rek sa dëkk daa tëggul. waaye. tey bëri bëri na mystique. lan lañ ci yàlla muccal. en fait dégg nga xanaa moo paree ñëw kër ga nga sang ma rek doy na waar. léegi nag dañuy dox kàddu gi suñu papa père Mbaye suñu papa papa Mbaye su ko defee moom bu dëgëralee ba noppi ñu jox Kara man nag sama kàddu ak ak ak kàddu Merveille TV jox naa ko ki nga xamante ne nag mooy suñu papa papa Mbaye ak ki nga xam ne mooy Kara ñu doxal. ndax ñoom taamu naa leen ci ci samay jotaay yu mel nii ay jafeer baat may bisimilah. jërëjëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu mbokki Touba ngeen mbokki taaxi kaw wala bu ñu sañee sax ñu wax ni mbokki Cees kaay gépp ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ci ci sa tur ak sa sant tey nag ñu ñëw ci bis bu mag di sunu bisu rak di nuyu suñu papa El Hadj Malick Guèye ma nga ne ci kaw ñu koy ñaanal yal na ko fi yàlla sama borom bàyyi ba ca kanam ak kanam muy nit koo xamante nit ku baax la di nit koo xam ne suñu soppe la di koo xam ne bañ ko dalee roy ñun ci làmb booba doomam yii di nguuda sax duggaguñ ci làmb papa ñu ngi lay nuyu ci kàddu écrit bëgg sa waajur gépp ñu yëkkati ko teg ko ci sama loxo ma tegaat ko ci sa loxo di la nuyu te di ñaanal nga yàgg ci suñu kanam yàgg noo ñaanal ñu yàgg fee ñëw yàgg la fee fekk jërë ngeen jëf mu mel ni tey comme ni ñu koy waxee yàlla dafa dogal tey jii suñu rakk di nguuda bu ngeen am bu mag muy bis boo nga xamante ni mi ngi koy bëre ak champion boo nga xamante ni mi nga dëkk fële ca Tivaouane ñu koy wax buuru àndala muy premier grand combat am yàlla dafa dogal nag tey ñun ñu nekk fi ak sunuy doom nekk fi ak sunuy rak ba tax na kàddu yoo nga xamante ni yu ñu war a biral la yàlla suñu dogal am na ñu mu ñu booleel ku ci mel ni Modou Karaje di xale boo xam ne ci man amul jataay bu may dem. am ay kàddu yu ma fa war a biral lu dul yoo xamante rek damay ubbi yëkkati kàddu yooyu tegaat ko ci loxoom yàlla da ko dogal mu jaar ci sama loxo mu doon xale bu ma déggal di xale bu ma bëgg di xale bu ma sopp kon ku mel noonu su ma dajee ak moom ci jotaay même bu ma amoon lu may wax damay tënk lépp boole kàddu yëpp tegaat ko ci loxoom mu ñëw doxal ndax tuxal cigarette yi sax dañuy tuxalante kon man maay seen kilifa su ma ñëwee dama leen di ubbil léemul leen ñaanal leen jox leen ngeen doxal moo ma wóol Modou Kara mu ñëw taxaw fii li ma war a doxal moo koy doxal ndax même télé bi ma toog di fa def lépp lu ma war a def Modou Kara koy def kon jotaay bi moo ko fekk rek ba ma fa kàddu gu may wax lépp ci laa koy teg Modou Kara ñëw ci Modou Kara Modou Kara ñëwal fii bismillah kàddu yaa ngi noonu loo wax maa la ko jërëjëf Papa Mbaye di nuyu association jeune promoteur bi nga xam ne ñoom ñoo taxool bisub le 26 février a fee nga xam ne mooy terrain Walidane grand combat bi war a dox ci diggante Ngouda bu Ngent ak Bourou Andala di nuyu Père Pambay di ko nuyu bu baax a baax a baax mais également di nuyu Momo vraiment ñoom dañoo baax rek mais ñoom daanaka suñ jëlee kàddu jëru woon sax ñuy jël kàddu Ngouda nga nekk ci sa koñ def open press di wajal bis bu am solo le 26 février sa digganteeg ak bour andala Ngouda nga jëm ci bis bo xamni mën nañ ni bi moy sa 3e combat Ngouda carrière sa carrière nga def ci euh, deux combat deux victoires sa premier combat ñu gis nga bëreeg bi muy su mburu sa 2e combat nga ñëw bëreeg ki nga xamni moy bébé Balla yooyu yëpp di ay ndam wala Balla 3 tay nga jëw sa diggante ak ki nga xamni moy bour andala sa lan lañ ci mëna xaar le 26 février. assalamu alaykum ginnaaw bañ sant yalla di julli si bi di sant sama ñaari wajur di sant sama ñett wajur di ñaanal sama yaay fam teud gënal ko fam mu di ñaanal sama papa ak sama tante yalla bay leen lool ci kanam ak kanam yooyu gis na taxawaay bu baaxa baax di nuyu sama mak sama ku sama mak sama yaay awa awa sa ma ngi nuyu bu baax mo borom këram gis na taxawaay bu baax di nuyu sama doomu baay manam ñun du ñay doomu baay sax ñun ñoo bokk nday ñoo bokk baay parce que gis na taxawaay bu baax a baax maa ngi am contentement bu baaxa baax baax si di nuyu population Touba Ngent bu bu baax a baax ak waa Ngent yee maa ngi nuyu waa Nasru waa Thialé xam nga di nuyu waa écrit bëgg sa waajur ak staff bi ñëpp maa ngi leen nuyu yee di kontaan tamit si waa écrit Samba Diaw gis naa taxawaay bu baax yee di nuyu waa Armam Bamba bu baax a baax baax gis naa mobilisation bi maa ngi am kontaan bu baax bu baax a baax di nuy ku si mel suñu frère am na nogay xam nga ak gars yi ñëw ñu bëri xam nga ku lim ku lim juum yee maa ngi si ñoom ñëpp yee di maa ñëpp si ku lim woo ñëpp ñëpp Yo wax kontaan naa bu baax a baax gis naa taxawaay bi te incha allah yàlla baax na. maa ngi Ngouda ñëwal ci la 26 sa digganteeg Bour ànd la say supporters lan lañ mën a xaar ci Ngouda. waaw ñooñu li ñuy xaar du leen koy wax surprise la incha allah parce que ñu dégg lu micro da ngay wax loolu dafa yomb te le 26 soreetul maanaam jours yi 4 xaw ma kon loolu boo si nekkee di wax da ngay bëri wax te loolu yàggatul incha allah le 26 nañu xaar. ñu gis nga am loo xam ne da nga koo bind ci sa ginnaaw mbuub mi. mooy bukki bu sàmm sàngoo. deru bay deru bay. Ah. loolu loolu bi ma demee di ko kii gaañ bu dana ma loolu olof la de man ko wax nga dëgg yow xam nga. bukki bu sàngoo deru bay lan lay lan lay loolu après naa la ko teg le 27 soo ñëwee sama gaal incha allah am na laa la ko waxee woon ci combat bi paas am na lu ma la loo ma laaj man la su bi paas na mais bi tamit su paasee incha allah boo ñëwee seet si ma dinaa la ko teg. est-ce que yi ñoo bokk. mais mbër la rek comme yeneen mbër yi dañ koy préparé comme ni mu préparé yeneen mbër yi mënul weesu mbër te ñun li ñu war a def yëpp def nañ ko dañuy ñaan jours yi yàlla ñu dem incha allah gars yi nee nañ ba nga dalee jël yaa ngi doog a jël combat waaw ah, man nag barke Seydina Mouhamed ne jàpp naa ne combat la comme combat yi fi jaar rek ni ma doon yi rek yaa ko préparé yow li ma laaj ñi lépp léegi nii xanaa déggoo ko fukki waaw nañ doxal rek waaw toog ñun dañu am rek ñu ñuy entraîné les combats lu mu laaj rek ñun loolu la ñuy def waaw loolu la rek mais liggéey nañ bu baax a baax si li ñu war a liggéey. da ngaa préparé combat bu gaaw. waaw lépp lañ préparé que mu gaaw que mu yéex lépp lu làmb di laaj rek préparé nañ ko. Hmm. côté mobilisation ñu daan gis nguur bu ngend combat parce que ay lu mat ay dix quarts day jóge fii nii di dem ay sat est ce que mën nañ koo xaar ci combat bii nii. cin bu naree neex bu baxee. tey loo gis. loo gis mbooloo mu bari. waaw le 26 soreetul incha allah mais di la wax ni bii non yàlla baax na yàlla baax na. ñëwal ci bii loolu kay intéressé na promoteur. non dara yàlla baax na di ñaanal laale tamit promoteurs yi xam nga ay jeunes promoteurs maa leen ñaanal bu baax si bis bi réussite totale. di leen ñaanal tamit dafa nekk ay promoteurs yu mag a mag a mag a mag. aja père. waaw Ngouda dañu gis généralement ñaari combat yi nga xamante ni. gis ni mu def ko ci arène dafay ñëw di bëri kii ay minutes yu néew te adversaire am doon adversaire boo xamante ni mun nay bëri combat bu yàgg est-ce bokk na ci lu mu préparé wala di bii mooy gën a gaaw bii bii abi wàccee loxo ma jëlee ko fi mu dem ñibbi parce que fi mu dëkk dafa àndal yaa ngi may dégg bu baax lii damaa bëgg lay seetaan mi ngi lay dégg lii damaa bëgg nga jot si bu baax baax le ah. bindo chokin boy ya people my right chungmara no bani no does not chungmara mara here bu ñuy fësal bu ñuy fësal combat bi am na lu ma la waxoon mais bàyyi woo si xel. lan nga ko waxoon la Ngouda du bandi mais nante la mais ba ma tontoo laa xam ne xamul li ma koy wax mais le 26 incha allah. mais nee na moom nante du ko daan de. waaw moo tax man la ba ma ko tont ma ma koy wax mais le 26 incha dina xam ne booy bi du bandi nante la. man man damaa ñëw maa say mag la man soxul man. yàlla baax na daal le 26 soreetul comme ni ma ko waxee rek instant su fi nekkee di mbaraju mooy loolu te le 26 soreetul yàlla baax yàlla si yàlla yóbbu jaam ak di sant ñu bàyyi nga woote waaw di di woowaat sama ami d'enfance yi maa ngi am contentement bu baax a baax si ñoom yéen di sant sama doomu nday maam aas kooku mën naa ne moom moo ma gën a sonn si làmb ji xam nga di nuyu sama jigéen Ndeela xama ay nday ay maarama sam ñëpp daal ay ñoom Abou Sadio di nuyu sama frère Thiel Thiak gis naa taxawaay bi gis nga kooku ah Thiel Thiak ah, maa ngi am contentement bu baax a baax a baax si moom parce que combat dama si damay yé damay woo ah ñu dem saal mu yëkkati xaalisam fayal ma di ma teg lu méttee métti yee maa ngi am contentement bu baax di nuyu ku si mel ni rafet jël ay ñoom bay rëg-rëg waa écrim ambulance maa ngi nuyu ñëpp di woo waa arrêtement Bamba di leen wax ni kontaan naa bu baax a baax a baax di leen wax ni ngeen waajal bis waa ngent maa ngi leen woo yéen ñëpp ñëpp képp ku dëkk ngeen rek maa ngi ngeen jàppale ñu si béy jàppale ñu si cadre parce que mbooloo fi nekk bëri na te ñëpp mooy loolu ñëpp ngeen ñëw jëndal ñu béy ñëpp teel a mobilisé wu dem di waxaat benn kii comme xale jigéen yéen ko waxee si réunion añi dafa war a teel a pare a teel a dem feetal estade bi ngeen yëngal si kaw ma yëngal suuf mu jeex di sant tamit booy jaxaaw di ko félicité si combat di ko wax ni combat ndam leen jógee yàlla na bu baax a baax a baax si ñoom xam nga surprise bi kontaan naa si bu baax ay boo jaxaw numéro 2 ñoom ñëpp waaye kër maa ngi nuyu ñëpp xam nga di nuyu ndonga daara yi di santaat sama bororo Kéba moom lii nii moom moo a waral xam nga combat bi ba ñuy waaj a ba ba mu ne a ba def jàpp nañ ko tàgg boobu ba tey amul jàmm chaque jour mi ngi woo média yi xam nga moom tamit maa am condamnement bu baax di woo taalibe Serigne Omar Njegéen yi bu baax a baax Omar borom nasiru minallah yetulu suñ gut mu taxëra maa leen di woo bisimilah sama chauffeur maa ngi bëggee ñëpp ah, yee di woo waa Jolof xam nga waa Mboy naan di waa Kër Ibra Gueye sama dëkk papa maa leen di woo bu baax a baax papa ah na la demee ñaani mi ngi yegg si kontaan naa bu baax a baax maa ngi woo ñëpp yee liste kii la nga bàyyi ba combat intellectuel la loolu lépp xaro rek tera ñun combat bi ñu si jàpp ñoo bëri waaye ñu ngi sant Matar su sama mag la dama xëy mu indil ma fi ay maanaam ñu war a toog añu lamb ja yëpp ñëw jëlal liste bi mu gaaw rek Matar li ñu war a toog togg si añ yi. gars yi a tourné ji émission. waaw na ko maa ngi kontaan bu baax a baax sama mag Adama suñu chauffeur moom moo ma doon yóbbu moom moo doon yóbbu matinal sama mag la maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di sant Moodu sama doom nday xam nga ko su mel ne Alaaji Matar maa ngi koy sant bu baax di sant sama mag ak borom këram Awa Samb ak Congaan yee kontaan naa bu baax a baax a baax gis naa taxawaay bi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant Ibu bu Nguura maa ngi kontaan maa Ibou yàlla baax na maa ngi nuyu di woowaat waa Ngent si combat bi bu baax a baax ñu ñëw jàppale ñu jàppale ñu si béy jàppale ñu si kaar ñu teel a dem ngeen yëngal si kaw ma yëngal suuf incha allah. jaajëf di la wax dem na ku ku yéex a ñëw doo am place. wasalaam jaajëf jërë ngeen def mbokk internet yi nga xam ni ñoo safoo Merveille TV ñoom ñi nga xam ne ñu ngi xaar ci plateforme bu mën na rawatina nag ñu nekk ci diaspora bi duñu xaar ci www point merveille tv point com amati nañ mbégte ak kontaan te leen ko waxee woon ci njëlbeen Ngouda moom la ñu dooree waatee ci ëpp presse mag bi nga xam ni moom la Ngouda organisé woon fii ci nga xam ni nag mooy ngent bu nee ngent na xel dem Arema Bamba waaye nag ñu ñëwoon fii ànd ak ànd ak waa waa Merveille TV ak toute l'équipe de Merveille TV ngir rek toppal li nga xam ne moo fi nekk ci ambiance rawatina nag ci préparation mbër mi waaye fu mu toll waaye nag ak adversaire am ñu gis ni moom waxtaan woo xam ne tubaarkàlla Kara àndoon na ci ak ak téléspectateurs yi yaakaar naa it téléspectateurs yi dina doon loo xam ne dinañ ci kontaan lool ñu jëmal nag combat la 2010 ko organisé les jeunes promoteurs fan fële ci terrain Wally Daan bu Mbour 1 ni combat bu nar doy waar dox kan buuru àndala ak ki nga xam ne nag mooy mbuuda am na ay combat yoo xam ne tamit combat boo boo ci naataam rek moo daax morom ma waaye nag loolu la 26 lay doon dina leen toppal làmb jooju ba la 26 ak jàmm ndax xam ngeen ne ak Merveille TV moo mën réew mi baaxoo naa di leen wax naa diine ba gën mooy lislaam wurus ba gën mooy ngalam waaye rajo télé ba gën te gën a neex te gën a dàkk tubaarkàlla mooy Merveille TV ñàkk koo seetaan wóoru jaajëfal nag ki xam ne nag mooy Alaaji Baro moo nekkoon ci caméra waaye jaajëfal ki nga xam ne nag mooy mooy mooy suñu DG ñambe moo nekkoon ci réalisation bi leen jox dig daje dimanche ak jàmm ñu jëm ci làmb ja ànd ci ak ki nga xamante nag ñooy supporters yi waaye ànd ci ñi nga xamante nag lu ngeen wax yéen lu ngeen wax ñun nguuda lañ am nguuda ak saro Kaawo Kaawo dafa Kaawo dafa Kaawo man tey ci Soso woo dafa Kaawo man tey ci Soso woo dafa Kaawo may tey leen ci Soso woo dafa Kaawo